internet du 5 TV ma dégte li si yéenekaay yi coowal parti mi lañu koy dooree ak le quotidien yéenekaay bi dañu xibaar ni la nekkoon vice président bu réew mi ba tax li quotidien ne Idi mooy chien garde bu bees bu njiitu réew mi Macky Sall Le Soleil di leen ca ndax bind na ni Déthié Fall Idi wàccee na ko ci poste vice président ba mu nekkoon l'évidence dolli ci ni Idi sacrifié na jàmbaaram ba yéenekaay bi dégtal ñu rekk kàddu yi Déthié Fall mi ñeel euh, sàkk poste muy bu député waxantuma laa nag bu ministre ci kenn nag yéenekaay bi ne daa ware ak waxu démbam ndax rek da doon ñaxtu li nga xam ni euh, moom la tuddee muut mbaa mott te tey jii nag loolee lay jëfee ba tax journal bi ne euh, njiital parti réew mi dëggal nañu rek ay intérêt moo ko tax a jóg enquête ñëw ak ñun ci dëgg-dëgg lu waral coow li l'évidence ne taxaw taxawaayu Déthié Fall jëm ci yorinu ko réew mi moo waral idi rek daal di koy dàq le quotidien ne ñàkk teewaayam ci nguur gi moo ko jural lii lépp moom Déthié Fall jàll ci libération yéeni bi rek di ñu xibaar ni idi ñëw na si li nekk ci suuf dëgg-dëgg yokk bi nga xam ne moom la yokk indemnité ñay liggéeyee rek ca conseil économique social et environnemental xamle si ni conseiller simple ya fa amoon nañu rek 1 million 200 ci kopparu Mauritanie di ak Macky nag seen waxtaan bu ñu ba ñu jógee rek ci jongante euh, a xamal ñu ni lu ñëw ñetteelu ko bu njiitu réew mi jaar bi mu war a jaar ca pencum ndawi réew mi ngir waxtaanee njàng mu kawe mi Cheikh Oumar Anne sital na boppam l'évidence teg ca ni lu ñeel budget bi lu ëpp ñeenti milliards la Cheikh Oumar Anne jël rek daal di koy sédd waa école privée bi las di ko dëggal ndax fësal na ni bor bi waa université privée yi daal di am Cheikh la leen a ci wàllante opp Covid bi waaye Abdoulaye Diouf Sarr di bi ñu dénk wàllu ko wér gi yaram moo ngi dalal xel yi Abdou Mbow moom li muy ñaawlu rek mooy bàyyande ko bi nga xam ni moom la askan wi ci feebar feebar bi Alioune Souaré nag moom li mu xam ne rek mooy li ko jaaxal mooy ba xam rek lim bi ñuy joxe bés bu ne ndax mooy li am dëgg-dëgg Cheikh Tidiane Gadio bi ba tey ji rek mbas mi jógewul ci réew mi Abdoulaye Diouf Sarr xam ne ni nag ñoo ngi ci xeex a baax feebar bi enquête xëy fësal lu doy waar yéenekaay bi ne scandale bu mag rek moo am te mooy rek jël ay doomu aadama daal leen di def ay jaam teg ci yëngatu ci wàllu ku dorog ak sàcc journal bi ne ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñetti doomu aadama la ñu génnee nekk ca centre de redressement bu Serigne Modou Kara journal bi doole di ñu si xibaar ni gendarmerie ci benn sàcc scooter la nekkoon rek di topp si la gisee lu ni si noonu nag gendarmerie daal di ciy woolu ñett lu toll si rek ñeent fukk ak ñetti doomu aadama ba noppi nag jàpp benn réseau bu boo xam ne daa jàppee woon ay nitti jàmm ñi fare ak Serigne Modou Kara nag ñoom xam ne nañu ni rek waa gendarmerie amul benn centre bu ñu fekk dorog laas di ko ca feelu xam ne ni li gendarmerie gis metti na torop ndax ay nit yoo xam ne dañu leen a tëj di Modou Kara yi ñu jeexal ak xibaar bu tiis bi nga xam ni moom moo wàcc si réew mi rawatina nag ci axlu football te yéenekaay yu bëri rek daal di xëy tey libération di ñu xibaar rek génn ko àdduna ki nga xam ni moo di Pape Bouba Diop jëm ci rek ndem si yàlla si Pape Bouba Diop mu xamle si ni nag mag bu woyof te am respect lañu ñàkk mu teg ca ni du ko mës a fàtte le soleil ne rek ba faaw jàmbaar ji nga xam ni moom moo tëraloon waa France fi la ñuy darkeepee li si yérekaay yi ma dala leen seen di nopp ba ëllëg incha allah ngeen jëf